ñuy wax ni fii si département Rufisque ñun nous ngi suñu campagne bu baax a baax a baax ñu ngi def porte à porte continuer di def suñuy campagne di dem di seeti ñi ñu war a parce que élection dafa war am le 25 février te dafay am le 25 février ñu xamal Macky Sall que ni moomul dëkk bi moomul nit ñi daf fi ñëw remplacer ay nit fekk fi suñu constitution constitution bi biñ koy defar bobu mom lu ndaw la bobu doonul dara kon tay bu ñëwé nit ñi dafa rappelé wu 2011 bi nit ñi di xeex. Mhm. dafa rappelé wu ni ay nit dañoo dé mom mu doga dañoo ba sonn jël nguur gi jox ko. ña nit ñi di Ousmane mhm. amul dajul ñu ba qui 2012 ñu tek ci nguur gi kon ñuy xamal Macky Sall que le département de Rufisque coalition bi nga xamné ne fi gëna majoritaire mo am fitu dox ci dëkk bi mo am fitu mobiliser te du jënd nit du àbb nit du luwe nit coalition bobu moy wax tay ni dañuy cam continuer suñu campagne te dañuy dem élection le 25 février ñi xamal Macky Sall nak qu'à partir du 3 avril nekkatul président de la république porte la duggee na ñaan yàlla génnee ci porte mais duggee si bunt génnee si paranteer bu mu ko ñaan yàlla ndax ñun duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba ñuy ñaawlu di métitlu wal fajiri mi ñu nangu licence am parce que wal fajiri ñun man damay naan wal fajiri moo daaneel parti socialiste mm-hmm. ndax misigu wal fajri boobu man dama bëgg ñu rëkkal ko Macky Sall mu abal ñu ndax 2000 musique wal fajri boobu moo ñu wàcc woon wal fajri moo fal Macky Sall si ñii fal Macky Sall la bokk kon wal fajri Macky Sall warul nangu seen licence nañ leen delloo seen licence parce que foofu ay famille ñoo fa ne ay papa fa ne ay yaay ñoo fa buñ leen di fay cinquante mille francs par mois sax dañu siy dundal seen njaboot kon seen licence boobu ñu dindi nañ leen ko delloowaat ñun nag ñuy rappeler Macky Sall que ñun ñooy coalition bi gën a mag fii nag si département Tëngéej te na tëgg élection yi vingt cinq février incha allah ñun dañuy gagné département de Rufisque.